numéro bu njëkk si ayu bés si seen programme bi la di yoor yoor yam ak ñaar fukki fan ak ñeent di 24 si weer yu ñu nekk weeru février atum 2020 ñu am mbégte ak bànneex bu yaatu daal di dellu si waat ne waat faax ba tey si kattanu borom bi yëkkateet ndabal nuyoo wasaare ko si askanu Ndakaaru Sénégal Afrique Europe États-Unis Canada Caraïbes ak li ko wër jox nañu cër sargal nañu ku lu koo xam ne jamono ji mi ngi toog di ñu seetaan diwaan ak bërëb bu mënti nekk rek jàkkaarloog télé bu moomal boppam di ko safoo di ko ndamoo waaye di ko tiitaroo mu di Walf TV télévision askan wi la télévision du peuple baat ñu amul baat cant ak ngërëm ñeen di la ñaanal ndoxteelu ay bés bu neex waaye kenn du jàmm ak salaam également en notre compagnie soxna Thiaba moo doon nuyoo noonu feggoog ña fare si wàllu xarale gi fas yéene ñu gunge fii boobu ñuy jeexal di midi bu soobee ki koy maye di borom bi subhanahu wa taala doore ko si yaayu xale yi di ajaratu Penda Diallo Guèye Ndioro Bassi ko ngi feggoog kooke di Jacques Gabriel Prera mbokk yi waxtaanu ay bés bi mam bi teg bànneex di ci ànd ak moom ni ma ko baaxoo di ko def ak moom altine bar xamis si waxtu wi di kilifa doomu reefan rafetlu xam-xamam Baye Mor Joono Daali Bugaat ak Manjuk asalaamualeykum. waaleykum salaam aouzu billahi mina seytaan rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina seytaan rajim rabbi aouzu bika min hamasaati sayatin wa aouzu bika rabbi an yahduruun bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sadid lisani nawir janani safil amani wasid barai assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh yaa soxna Thiaba ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu lay fay di la di la ziar di ñaanal tawfeex yow ak sa borom kër ak sa famille yëpp di kontaan ci fegook yow ci waxtu bi. jërëjëfati. ay di rafet lu liggéey ba rafet bi nga xam ne keroog taxawee nga ko. ndeysaan yow ak Serigne Touré. ndeysaan mu jëm ci laaj ak tontu. Mm-hmm. mu doon yu am solo yoo xam ne. Mm-hmm. ñii nekk ci biti di bëgg laaj sax li ñuy bëgg a laaj yaa leen koy laajal. jërëjëf loolu am solo la. ah jërëjëf. waaw di kontaan ci liggéey bi ni rafet a keroog. ndeysaan da ngaa baax rek te ñàkk ci ñaan yow itam ah, yaa wax lii. waaw maa ngi ko naan suñ turé ba après sonalu ma la. <laughs> waaw parce que nga rek. laaj bi ah, tam dañ fi nekkal askan wi daal xam nga ñoom it xam nga ñoom bu ñu ñëwee ci émission yi dañuy bëgg ku leen laaj. ndax ci biir laaj bi ci la xam bi bi génne. ci la li nekk ci biir nëbu ci la génne. ñu mën a leeral ñu mën a leeral lu bëri la xam ne parce que tamit du toog am na ñu toog yow defoo li ni mel. mais am na def li ni mel. waxal ak ñoom. ok loolu nag moo tax kon nag eh, toogaay bi ngay toog day toog toogaay day doon toogaayu ñeneen ñi nga xam ne nii. ñu ngi toogoon naan ay eh, su ko laajoon lii ay eh, su ko laajoon lii. nag boo leen boo laajee laaj boobu day doon loo xamante ne nii. lu leen yitteel lay doon. jërëjëf comme ni ko Amina Fall sama cousine waxee jërëjëf si Medina merci Baye Mor. waaw di ziar Adjara Toppé Ndiadialo Guèye di ko ñaanal ta feex El Hadj Adama Guèye. Mhm. nekkin onu sac Gabriel Pereira. El mhm. Hadj Modou Fall ñoom ñu ci liggéey bu mu rafet Brahima may ak Aline Diop ñoo leen di nuyu di leen ziar waaye di ziar kilifa diine kilifa aada di leen ñaanal gudd fan ak weer. Mhm. yàlla may leen kattan bi yéen bi tegu seen kaw ñu yóbbu ko fu kawe seen jort waaye di ñaanal kilifa aada yi yàlla may leen wér ak kattan bi yaakaar ji askan bi am ci ñoom bañ tas. di ziar yi nga xam ne ñoo taamu ànd ak ñun ci waxtu wi fi ñu mën a nekk ci réew mi bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen ñaanal kenn lu jàmm leen ñaanal lépp lu ñu dugg yàlla def ci barke mm-hmm. yàlla def sotti xeewal ci réew réewum senegal waaye ci àdduna bi yëpp euh, jàngoro jooju nga xam ne itam mu ngi gën a law rek di yaatu doon loo xam ne jaaxal na àdduna ñoo ngi ñaan mhm. tam yàlla mi nga xam ne mooy saafara mu saafara ko amiin yaa rabbal aalamiin ci ñëpp ñi nga xam ne ñoom la dal mu dalal leen seen sago ñu wér mhm. ñi nga xam ne dalagu leen yàlla feggu leen ba mu bañ a àgg ci ñoom mhm. barakat rasulillah allahumma amiin yàlla yàlla nangu ñaan yi ñaan dafa am solo lool lool lool lool et bu kenn xeeb benn ñaan da kenn xamul ana ban ñaan la yàlla di di nangu kon nañu amin rek ma fekkee ku ñaanal jàmbur sax damay wax amin su ma toogee tele bi sax di seetaan am ñuy ñaan déggoo gooma de mhm. damay mel ni maa nga baax damay ñaan <laughs> waaw kay xam nga <coughs> léeg mu dal ma adal ah. euh, ah, dal da <laughs> léeg-léeg damay a maanaam damay gis euh, kilifa di ñaan ci waaw télévision ah, ma dekk ñaan lay dekk ñaan bi waaw ay ñaan bi passé na sax. bokkul ay baax na ba tey on sait jamais ko ma ne ko ñu ngi koy wax te yàlla passé <laughs> yàlla lañ koy ñaan. lay dëgg la xam nga yàlla moom amul dem ak tey ak suba. loolu amul ci mbiri yàlla. Mhm. ñun ñoo am lool mhm. loolu moo tax nag ba eh, saa boo taatanee di nangu ñaan. kan ngay nangu ñaan ngi ci moom ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala uh-huh. te moom du passé du fi uh-huh. jóg uh-huh. nelewul gëmantuwul waaw doone yàlla nekk fi tey bu ma ñaan toujours mu ngi fi doone tey mu ngay nelew xëy na déggu ma naa xaar ba mu yeewu comme mu ngi fi nag euh, jamono bu nekk yow mën ngaa ñaan amal ñaan jëman ci moom moo xam nag ñaan nga bu doon ni téeméeri at lañ ko ñaanoon ca gannaaw itam yow dekka rek na amin lañ cay ñaan nga di ko dégg sa nopp loola ni koy dégg yàlla la ko gën a dégg loolee nag E, e, e yërmande suñu borom yaatu na. Mhm. ba mën na la caa laawaale ba fajaale ko say aajo. et puis cër la sax wax dëgg cër la ci nga fekkee nit ñi nga gis ñi ñaan nga ne pat. Ah, loolu mooy nga romb ci ci xeewali suñu borom yi maanaam da ngaa jàpp ne da ngaa rëy rëyatalal loxo ñaan. wala est-ce que gisoon ni jamono tëral yi moo tax ñenn ñi wax ma télé bi de télé bi moom lañ fay ñaan yëpp tabarkàll waaw mm. mm. si biti nii en xam dañuy dajaloo di ñaan waaw en rombant bi <laughs> ñaan bu baax rek la est-ce que duñu ragal daan ah, euh, ma loo xam ne ñi dañ koy topp wala yooyu <laughs> est-ce ma si dëkkaale du ma ko toppaale ni ñoom mm. déedéet koy def duñ ko defee ci talal la seen xam ñaanal la ah. <laughs> déedéet Euh, bu dee jub jubli ci nga topp leen rek. Mm. du du du du àgg foofu. Mm-hmm. ndax itam mënoo def ñëpp topp la moom. ok <laughs> ah waaw. d'accord <laughs> am solo itam ñu wax ko ndax jot nga romb rond point Liberté 6 bi wala nga taxaw fii rek daal di firi yëf yi. waaw. lu mu euh, yàmbala xam naa biig si guddi moom. Mm. doxantu naa fa. ah, ah yëg ko ba ñuy ñëw. waaw waaw man waxtu la woon à peu près. xam naa dama koy teel nañoo ñëw moom. teel à vingt et une heures yooyu fekk na ñoom ñu placé wu. fekk ñu placé wu. waaw xanaa kon am na ñoo xam ne wàcc guñu parce que ñu si si ñoom ah, foofu la ah, ah, xamoon nañu ne tey jii am na luy parce que nag waxoon nañ leen ko. avertir nañ avertir nañ leen. Euh, depuis si suba sax am na ñoo xam ne ni euh, ñu commencé woon nañ di wàññi seen i bagages waaw. démb si suba mais nag xam nga toujours day am. ñoo xam dañu naan ah non dañuy wax rek peut-être. dinañ yaakaar jusqu'à dernière heure la ñuy xel di doog bu ñu demee ba gis nag ne gars yi agsi nañu. bi ñu mm-hmm. gisee. appel mécanique yeeg euh, euh, kii bi euh, sécurité bi ñoom waaye ci macha allah sekkanoon nañu fi trop. ñu ànd ak ministre waaw waaw ànd ak kii jumtukaay yi ñu war a amal liggéey bi. Mhm. mu doonoon loo xamante ne nii itam ñi seetaan day daw seen yaram. waaw maanaam di nga ci am beneen yëg-yëg daal ci saxal xam nga. malgré que xëy na am nañu ne fuñ ne jaar fuñ jaar ak ñoom ba amal yoonu xëy na war ko leen faa mën a jëlee. Mhm. ndax euh, ci ay jëflante la seen biir waxtaan nañ kook ñoom itam xëy na mu mhm. jël benn temps bi waaye nag teewul rek saa booy gis yu mel noonu rek di amal di nga ci fiil dara waaw loolu yëg naa di nga xam ne lii daal euh, daw na yaram daal parce que même boo leen rombee sax yaa ngi leen yomb naan ne yàlla baax na yal na yàlla mhm. jàppale parce que ñoom ñëpp xëy si nañ parce que lu ñu tàmm la dafa doy waaw xam nga tey fi nga xam ne fa nga tam ay ati at boo xëyee nga dem fa boo mhm. xëyee nga dem fa nga xëy benn bes war a toog xoolaat beneen dafay dafay am tristesse boo xam ne day day mm-hmm. nekk sa biir mm-hmm. loolu nag képp koo xamante ne nii dafay am yërmande day fil loolu mm-hmm. soo gisee da koy seddoo ak yow même bu fekkente ne daawut fa xëy daaw fa kii itam mais day yëg ne rek lii su nekkoon moom la day jël affaire bi def ko place am loolu nag mooy tax yërmande jooju di am xam ne dem si guddi bëri na ñoo xamante ne ñëw nañ fa taxaw mais yërmande moo taxaw ñu ñëw taxaw fa di xool ndax ñu bëri da ngay naan ndeysaan mais euh, encore doo mën a xam tam dëgg-dëgg Euh, mbir mi ndax tam euh, comme que daal ne nañu am nañu fuñ ñu jaarak ñoom. fuñ jaar ak ñoom mhm. mooy loolu ah, ci xëy na ay ndampaay ak yu demee noonu. Mm. ci waxtaan ak ñoom. Mhm. parce que du du xëy xëy rek. ak yóbbu leen feneen. waaw du xëy parce que du foofu rek la ñuy la dindi de bari naa bërëb yooyu romb ñu dindi ko. Mhm. mais bii def see gën a daf a fës. parce que si rond point bi la nekk man xaw ma sax fii tam noonu la yaatoo. ok amoon ay voies yoo xam ne sax feeñu woon. ok noonu la mais nag xam nga toujours rek dañuy wax ne. Euh, xëy na ki nga xam ne amalagul boppam lu mën a moomal boppam mhm. su rek faw du ñàkk ndax li ñuy wax yëpp mooy jafe-jafe bi nekk ci réew mi mhm. ci mbirum liggéey loolu mooy andi jafe-jafe yu mel nii nit ñi di occupé yenn place yoo xamante ne nii peut-être xëy na warul woon a nekk mais nag lu tax warul woon a nekk mooy amuñu woon feneen fu ñu dem def parce que su fekkonte ne tey entreprise yi euh, euh, ñu ngi nekk di recruter ay nit di soxla ay liggéeykat xam nga boobaa ñi nekk ci mbedd mi boobaa di nga leen mën a wax ne ah yéen kat euh, entreprise tel mu ngi wut ay emploi te yéen yéen a ngi fii kon nangu ngeen a dem liggéey foofu lu tax ngeen bëgg a toog occupé mbedd mi parce que yeneen dëkk yi nga xam ne réew yi nga xam ne dañuy loolu dafay am da ngay gis ne ñoom seen i entreprise dañuy demandé ay emploi même ñoom duñ nangoo dem liggéey foofa noona di jël yeneen place di ko occupé bu boobaa ñu ne lu tax nanguwuloo dem liggéey ci entreprise bi nga bëgg a ñëw euh, tànn mbedd mi mais tey benn entreprise boo fi gis muy recruter euh, daanaka da ngay dégg sax yenn boîte yu mag ñu naa ñu ngi wàññi parce que lu tax jafe-jafe koom-koom bi nga xam ne mu ngi am ci ci ci réew mi. te ak lu ñu bëgg a jënd ak lu ñu wax ne jënd ak jaay yàlla daf ko barkeel. wala voilà léegi nag nit ki su fekkente ne mu ngoog voilà su fekkente ne ñëw na gisul. fenn fu mu dem def demande pour mën a am ci lu ma jàpp. Mhm. léegi du toog faw mu wut lu mu lu parce que li may wax ne soxla xamul ku liggéey ak liggéeyul. soxla boo xëyee dana dana ñëw boo xëyul dana ñëw. Mhm. kon nag lu ñooñu mënuñoo toog rek di dem di talal ñi loxo. Mhm. faw ñu dem jéem a wut lu ñu am teg ko def ko bagage di ko jaay mën ci am dara lu leew loo xam ne dañu ko mën a dundee mën ci dimbali seen njaboot. loolu nag moo tax faw soo ne nit ki bàyyil lii. da am loo ko jàppaloo uh-huh. bu ko defee bu xoolee ne la muy jàppkat dana ci gis boppam uh-huh. bu boobaa du jël benn coono bi di ko daj ci lenn parce que lim bu takku itam moo nekkoon fii et puis c'est pas la fois ma dégg ne dañ leen di euh, jëlee euh, fii si bërëb yooyu le si uh-huh. bërëb bi le euh, commencé woon nañu ko ana lan moo taxoon ñu jékki-jékki ñëwaat waaw xam nga toujours dafa amul suivi waaw wala yëf yi dafa dafa nekk woon ñëpp la ñuy génne foofu waaye bi yoon de ku ko gis xam naa di nga xam ne lii moom bi yoon dëgg la parce que table yeek lépp lépp lépp lañ fa jëlee et puis ak mbalit mu takkoo takku nag yaa ñu wax ne am na ñoo xam ne kenn nañ jël seen ay bagage <laughs> mais par contre am na ñeneen xam ne seen i ay bagage ma nga fa ndax gis naa ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si biir si mbalit bi mhm. di di di ah, tànn ay jiin ak yooyu ay o ñii di xool ay jiin ñii di for en tout cas ñi ngi for mhm. daal ah, ay jiin ay o am na ci ñoo xam ne xam nga nee naa la am nañu njort woon ne lii dana am ñu wàññi seen i yi nga xam ne ni ñoom itewoo nañu ko parce que xam nga njaay moom toujours du ñàkk yoo xam ne eh, kii lay nekk waaw mais nag li nga xamante ne itoo am nañ ci wàññi woon li ñu kii mais nag am na ñoo xamante ne ni dañ naa ah li wax rek loolu du am xam nga toujours rek ni ñuy waaw ni ñuy yooyu mooy tax ba yu mel noonu laa lay buy ñëw daf leen di bett mm-hmm. moo tax ba xëy na am ñu bari ñoo xam ne itam mën nañ cee yàqule parce que lu tax mooy wàccoon nañ rek dem ñi bi njort ne suba bu ñëwee danañ fi nekkaat comme noonu wala peut-être affaire yi suy am bëccëg lay am mhm. te ñoom amaluñu ko bëccëg guddi lañ ko amal kon loolu parce que yéen opération yi ak fii ko bëggee amal bëccëg itam di mhm. waxuma la ñi nga fiy jële seen i itam da nga leen tey lënd bi ñëpp war a xëy dem liggéey mhm. soo fi bëggoon a ñëw ne da ngay def loolu itam da nga euh, tardeel ñu bëri seen liggéey yaa ngi wax ne yërmande bi ñu si bëri si ñoom bu ñu rombee wala ñu taxaw di ko seetaan ak yooyu wala ñu romb ko dañuy am loolu yërmande ba si ministre yaa ngi dégg mu koy wax peñ mhm. na si kaddu yi ah, ñu waral na ñàkk pexe la xam naa mooy pexe mhm. rek lu ñu war a defar la mhm. yaatal ba si mu nekkul na nekkul moo leen gënal daal maanaam gaañ bëgguñu def loo xam ne dafay gaañ nit moo ñu koy xaw a def ndànk xam nga moom gaañ moom amul ndànk amul amul bu baax waaw gaañ gaañ la rek mais c'est que yow mën nga jàppe ne lii lu kii la keneen tamit xëy na moom mi toog sa di war na xam ne ah, dëgg yàlla lii taaral dëkk lii taaral fii tam bëgg na ko waaye moom mhm. itamit warul rek gis ne mhm. moom la ñàkk liggéey mu war a daan dooleem la muy am wala yóbbu ko sa waa këram mhm. mooy li ko war a yitteel mooy li ko war a soxal euh, metti na nag waaye nag yàlla na yàlla def ñu yóbbu leen ci yeneen bërëb yoo xam ne euh, clients yi daañu leen fa fekk li may bañ rek mooy li daloon foofee ca waa gaar bak yooyu ah, su ban yóbbu leen euh, côté côté kii bi côté banque bi banque de l'habitat bi. Mhm. ci ci centenaire bi. ci garage bu mooy gare bu bu wees bi. waaw fi nga xamante ah, ne moo nekkoon de am na marché am na lépp. champ de course mais ñeneen jubluwul ñun ñu bari. loolu moo tax ñu si mhm. bari euh, dëgg yàlla ñoom ñu plaindre di wax ne fiñ leen yóbbu yooyu mais léegi ñi ñaa ngi koy miin nànk-nànk ñi itam yàlla nañ yóbbu foo xam ne clients yi dañ leen dem fekk ji leen parce que Liberté 6 aussi. Mhm. ñu si bari marché bu siiwoon la aussi. waaw xam nga léeg-léeg itam dañu laaj euh, ay xalaat yu bari yuy jiitu. balaa nga ne nit naa ko jële fii la nga war a jëkk xalaat mooy fan laa ko yóbbu fan ko yóbbu itam day nekk benn point boo xam ne dana xaw a stratégie pour waaw pour nit ñi jën parce que boo xoolee foofu noonu bi ñuy def kii boobu noonu itam d'accord foofa amoon na terrain am na am na espace bi mais problème bi mooy fi mu nekk pour nit ñi di fa dem xam nga dafa xaw a jafe mooy euh, euh, foofu nga doon expliqué na le waaw waaw parce que tey euh, soo xoolee tey genre de course bi comme ni ñu ko defaree noonu ne woon Sandaga nañ jógee foofu ñëw foofu noonu waaw dafa amoon benn jafe-jafe bu am foofu noonu mm-hmm. parce que lu tax mooy Sandaga bu fekkee ñuy jaay <coughs> pardon ñuy jaay lijum soo xoolee marché ti leen sorewul ak foofu foofu mm. te itam ñi nga xam ne ñoo dëkk Gibraltar côté yooyu noonu vers centenaire bi mm-hmm. ñooñu ñëpp ñi ci daan dugg ñu bëri dañuy amal seen dugg marché Tilène. te dañoo am tam Auchan seen wet. voilà léegi nag xam nga loolu kooku pour muy déplacer waat di demaat ci marché bu bees te lu may wax toujours ne marché bu bees dafa am leen lu ciy nekk tam uh-huh. maanaam ñi ko senc boo moytuwul duñu ko jëriñoo. Hmm. waaw ab marché bu bees. ña ko senc soo moytuwul duñ ko jëriñoo. Ah, waaw xam nga lu tax mooy euh, boo fa nekkee andi sa bagage teg. Euh, njarte bi du demee noonu ndax nit ñi tamaguñu ko. léegi yow da ngay xëy di jaay par tuuti tuuti li ngay jaay du am solo boo amul solo nag sa capital ngay xëy di dundee parce que wax naa soxla xamul kii ah. liggéey ak ki liggéeyul léegi bu fekkee li nga jaay mattul bénéfice bi nga ci am mattul sa dépense te yow sa dépense moom du la wàcc léegi sa capital ci ngay xëy di dund balaa marché bi di wuyu ba nit ñi di am jubluwaay di fa dem loolu day jël temps est-ce que yow am nga capital boo xam ne dana toog mën xaar loolu parce que soo gisee loolu mooy jafe-jafe yi nga xam ne ni ñuy sàncee marché rek loolu mooy andi jafe-jafe yu mel noonu parce que xëy rek jëlee ko Sandaga andi ko foofu noonu boo xoolee ña nga xam ne ñoo nekkoon Sandaga doon jaay nekk fa. ñoo walbateeku du foofu ñu ci bëri tey euh, seen i place wocc nañu ko dem nañu defi leneen. ak dem ba dikk bi mm-hmm. ak lan nga xam ne moo leen fa jumtukaay yi ñuy jël. mu mm-hmm, nga pour mën leen yóbbu de. non dafay dafa xam nga fukki dërëm ngay waaw <laughs> euh, dafa foofu dafa xaw a euh, pour affaire ah, jaay waaw dafa xaw a parce que boo xoolee autoroute bi moo romb ci gannaaw ñi romb foofu kenn du def achat di ñëw jaar foofu na kurom da ngay jàll continuer dem ville soo jaaree ci côté bi nii nga xam ne moo jëm euh, RTS jëm Grande Mosquée foofu itam ñii dem ñëpp daanaka du ay yoon yoo xam ne da ngay ñëw rek jàdd ne naa dugg fii pour def achat mhm. feneen nga xam ne ñi doon liggéey bu ñu wàccee dañuy jaar dugg dugg seen dim foofu point la woon bu stratégie ci ñoom ci ci ñu mën a amal loolu foofu moo tax ba ñu ko defee foofu am naa fa samay euh, euh, kii frère yoo xamante ne amoon nañ fa bàyyi nañ bàyyi nañ ba ba ñu kii laa leen ne laa leen expliqué na ne marché ku ko senc doo ko jëriñu bu fekkente ne li ngeen yor moom mituwul day des foofu noonu parce que ah, lu ñu def wuti nañ yeneen fii wuti yeneen place feneen pour mën a wéere parce que nit ku mën ta toog ne du liggéey mais nag da ngay dem seeti marché boo xam ne mu nga doon dox tuuti nga dem wut fa place pour mën a mën a am mais marché bi nga xam ne yéen a ko senc ñëw rek ñu ngi dépendre ci marché bi daal doxaayam mais nekkul yow moom sa nekkul ci yow parce que lu tax mooy xam nga tey si client bi nga xam ne da daan wàcc jaar ci yow jënd soo toxoo fale du moom mooy jógee foofu di ñëw di la fekk si foofu encore parce que moom itam dafay am problème mu euh, programme bu liggéey wàcc war a ñibbi këram am yeneen yu mu war a dox kon nag day day c'est parce que looy jaay rek am na keneen ku koy jaay. te am na beneen plus mooy parce que dafa am ñoo xam ne. Mhm. peut-être dañuy jóge seen kër. Mhm. wala jóge seen bërëb liggéeykaay wala jóge fu ñu mënti bëgg. Mhm. Euh, bàyyeekoo fa wutali marché ba parce que am na lu ñuy soxla. Ah. mais am na ñeneen ñoo xam ne. en rombant lay doon. voilà maanaam dañuy romb rek xam nga dafay fës. loo xam ne sa amaana xëy ko. bëggoo ko jënd préparé ko woon. nga si circulation bi rek. jaay kii nga fa mën nga fa jënd loolu moo tax ñuy taamu yéen yéen béréb yi parce que lu tax mooy dañ ne kuy jaay doo làq comme kuy jaay doo làq nag bu nekkee foo xam ne dafa xaw a enclavé tuuti pour nit ñi yombul nit ñi di fa dem mm-hmm. maanaam tey da ngay am soxla ne man damaa bëgg duggi wala damaa bëgg jënd dara mm-hmm. nga ne naa jóg dem sànni pour pour pour pour duggi mm-hmm. foofu noonu xam nga loolu c'est très ngay gis nit muy muy programmé noonu euh, léegi yow fenn doo jéem a lijjanti ba xam ñoom fu ñuy toxu fenn sa marché la de Liberté 6. Penda xam nga marché bu baax. lay lay Penda sa sa sa kal bi. Ah, moom léeg <laughs> waaw waaw léeg-léeg léeg-léeg mu romb ma daal mbuus. waaw ah. ah xam naa ko kenn ku solo des fois mu ski a ma fii yooyu nga xamante ne ni euh, moom mooy xew. ci ci biir man sax maa waaj dem. <laughs> kenn mës a gis lii am na lu fa bëggoon. ah oh, dëggantaan ah. ma déedéet moom kay. Euh, wóor na yàlla ñëpp dañu fa amoon yite am na lu ma fa oh, ñëpp dañu fa am yite di fa dem. di di <laughs> moom kay ku ku fa dul ah, dem di jël sama yaakaar noonu. ah waaw mais nag. Euh, fu ñu leen di xamantam. ah kenn boo ko xamee rek yow mi dëkk côté yooyu. ñeneen euh, ba xam naa maa ngi yow. waaw loolu daal moo war na jëkk a doon nag li nga xam ne moo doon programme bu normal bi mm-hmm. loolu moo war na jiitu. Mm-hmm. xëy na gis nga yëkkati yi daan am bu njëkk nga xam ne daan na am ñuy dellu siwaat yooyu dafa daan dem ci problème mu maire yi léeg ñoom la ñuy amal jafe-jafe ah. ñu ñëw loolu itam day dem ba dañu naan bu ñu jëpp yëkkatee ñii place bi defuñu fi dara ah. léegi te ñoom bi ñu fi nekkee ñu ngi nangoo ñëw di leen eh, jaay eh, ticket ñu jënd ah. kon am am na am na yoo xam ne ñu ngi koy wàccoo encore ak eh, commune bi ñu nekk loolu itam day doon loo xam ne ni buñ ko bàyyit ñoom dañuy am beneen département bu ci nekk ci ñoom kon ku ci nekk da ngay am loo xam ne looy wut ci sa morom la mhm. waaye bu demee ba débordé ba débordé itam mhm. day laaj ñu ñëw recadré waat leen boo bu ko defee ñu bëri xaw wàññeeku ñu organisé waat mu continuer mais nag li wuute yooyu ak bii mooy waaye na am sécurité de parce que yàmbalang na de yàmbalang na de dañoo am leneen fay def xam nga fi mu ah, nekk nii boo gisee affaire bi demee nii hmm. mooy seen euh, kii bi ah, euh, foofu lay jaar euh, seen la ah, ah, ah. waaw waaw foofu lay jaar waaw léegi léegi comme BTR bi foofu lay jaar. Hmm. léegi loolu moo tax ñoom fi mu nekk nii suñu suñu yëkkati bi mënut a ñàkk. parce que nag comme fi la war a jaar faw ñu ne dara li ñu naan nit soo ko jëlee fi béréb te defoo fa dara day dellu siwaat hmm. moo gis léeg-léeg ñu yëkkati ñeen fen hmm. mais bu yàggee ñu dellu siwaat parce que lu tax mooy ñoom amuñu leneen luñ def amuñu feneen fuñ dem fii nga leen jëlee tam defoo fi dara kon faw kenn kenn mooy dikkaat dikkaat boobu ba muy melaat nu mu meloon mm-hmm. toujours noonu lañ koy gis mm-hmm. mais nag su fekkee daa am leneen lu ñu fa programmé di ko fa tabax di ko fa amal mm-hmm. loolu day doon loo xam ne nii leneen lay occupé place boobu noonu waaw waaye nag seddoon leen ba xam place bu baax boo xam ne wa avant bu ñuy jógee fii mën faa dem balaa ngaa wax yëkkati ngeen leen ngeen kat dara sangama ngi nii waaw li tax loolu mënul nekk maanaam avant ñuy dindi ñoom ñu ñëwaat di gis see bagage wala ñenn ñi sax seen bagage des ba ñenn ñi jaar di ñëw di tànn ñooñu tam ñu am fulla lañ ña ngay tànn di suñu kenn yi fi yaa ngi yàmbale nit ñaa ngi bari waaye ñoom ñu sëgg di tànn rek waaw xam nga siggi rek seen aajo ngi faju macha allah ah, xam nga càbbal soo demee mbëbës noonu la waaw xam nga mbëbës moom moo gën a garaaw dem naa fa waaw waaye teewul da ngay gis ñi di fa wuti lu ñu am gis nga nit ki li doon soxlaam mhm. bu waaw bu ko rëy maanaam mu doon daal looloo xam ne li muy jomba def daal mooy loo xam ne lu bon la waaw maanaam uute ko noo xam ne lislaamam lislaam nangu ko waaye su fekkente ne lii jàppalu du lu ñuy sànni ji la rek ah. yow nga mën sox am ca la soxla wax dëgg yàlla balaa moo dem ñu koy taal wala ñu koy sànni mu yàqu ah. nga jël ca la nga soxla loolu su fekkente ne nag ñi nga xam ne itam parce que beneen wàll dafa am dafa am ñoo xam ne dañu béyoon seen marchandise ñu ñëw def ko noonu ñooñu war a xëy ñëw xëy na dina jafe ñu xamee seen marchandise ci biir ndax comme ni mu jaxasooyee oh. kon itam da ngay jël jëlaale yi fa keneen oh. kon léegi day mel ni lu pëccëxoo lay doon kenn du neeti maa moom oh. booy tànnit sa morom di tànn doo ko sañ ne ko bul tànn ndax moomoo fi kon loolu day doon yoo xamante ne daal la ci gënoon mooy biñ leen waxee ne leen waaw voilà balaa ñoo ñëw di kii waaw léegi defar place bi ne leen kaay leen béréb a ngi nii ñu jël seeni i yóbbu ko foofu ba nga xam ne boo dikkee xëy na la nga fekk lépp mbalit lay doon ndax lañ fa soxla yëpp jël nañ ko ndax lépp loo xamante ne ay nit a koy def war nañ ko mën a waxtaane ba jubboo ci benn point te nag temps bi yaatu na ñàkkul ay waxtaan amal nañ ko ci mm-hmm. waaye itam xam nga rek toujours nit ñi it dañ dul gëm mel ni man da ngay wax lii ñu ne ah dañuy wax rek muy du am. parce que c'est pas la première fois voilà mu nga ko loolu itam day dem ba day yàq pas-pas bi nga xam ne moom la ñu war am. pour mën a jubbanti suñu réew. Mhm. waaye pour mën bu ñu waxante te kaddu yi ñuy waxante. Mhm. ñu mën a sam kaddu yooyu ba mu mën a. d'accord tabarkalla ñuy nuyu marchand ambulant yëpp nuyu tablier yëpp. yal yàlla barkeel liggéey bi ak ñu si bari ay jàmbaar ñoom ñëpp sax jàmbaar lañu ndax koo xam ne bu ko neexoon ne am na lu gën a yomb loolu am na lu gën a gaaw loolu kon mhm. baa bàyyi ma dem wutali ci loolee mhm. ma bàyyi loolu yëpp mhm. ñëw si bénéfice yoo xam ne par par ñu xeebuñu ko nga xam ne bari barke lee moo ko gën yal na yàlla barkeel yal na yàlla jàppale leen euh, taxaw leen euh, bu baax baax taxaw seen njaboot ndax ñoom fu ñu jaaxlee seen ay njaboot dañuy jaaxle euh, nga la woo ne dégg naa seen bërëb dañ leen di seen place bi ngeen nekkoon dañu dañ leen yëkkati di leen ñaanal kon ñun tam ñu ngi ànd ak ñoom ci loolee da ngay gis ne ñeen ñi la ñuy jóg dem ci fu mel <clears throat> mm-hmm. xam ne coono bu méttee métti la àndal ak pas-pas bu méttee métti su ko defee ñëw war a defaraat li nga xam ne moom nga tànn foofu ñëw organiser ko euh, commencé monter daanaka suba bu ngoon da ngay nekk ci defar jubanti njaay moo demee noonu su guddi ngay wàcc encore fajar nga war a xëyaat teguwaat ci lu metti la moo tax man la nit ki su gisul leneen loo ko mu gën a parce que tey su fekkonte ni euh, am nañu gars yi jàppale nañu borom entreprise yi ba ñu mën a taxaw taxaw bu dëgër ba nga xam ne tey Euh, xëy na lii di am nii ñu bëri jóge jógee yenn régions yi di ñëw région bañ nekk am nañ fa liggéey yu ñu fa mën a amal te liggéey yooyu du jar ñuy depp wu di ñëw fii mm. <coughs> kon capital bi nii mu def nii mel nii du mel nii waaye daanaka yëpp daa booloo nekk ci biir capital bi ñëpp seen yaakaar nekk waaw mais xam nga du njaay rek dox de gis mm. nga gis nga problème bi xam nga lan moo am mm. mooy liggéey moo amatul ñëpp dal kenn amatul loo def nga dem jaay seetal Euh, boo boo fàttale ko rek yow xam nga lu may wax dañ ko xam bu baax ndax tey euh, yàgg nga euh, Medina macha allah war nga xam lu bari loo xam ne mm. fàttaliku nga ko mm. tey kër yu bëree bëri boo demee kër suuf yi def nañ ko ay boutique def ay boutique boutique waaw rawatina côté côté bi waaw te ah. tey tey te loolu lu jafe la woon nga gisoon ko boo xoolee ci année quatre vingt ba quatre mm. soo xoolee kër yu bëri boutique da nga daan laaj fan la boutique bi nekk ñu ne la fale mhm. léegi tey roode na fa nekk mhm. dafa am yéen yi sax ñi nekkoon ci ci ci ci mbirum business sax boo leen noonu barab sangam doo fa ubbi boutique dañ naan ah foofa du du marché foofu boo du dox foofa ay mhm. dëkkuwaay xam nga jàpp ñu yooyu noonu daa amoon ay béréb yoo xam ne dañu jàppoon ne fii moom mooy mooy kii fee moom ay dëkkuwaay la mais léegi tey loolu amatul lu tax loolu ñi dem ba kër yëpp ñu daj ko def ko ay boutique kon def mel ni ñëpp ay jaay bu njëkk da nga naan nangam laa soxla ñu la bërëb sangam nga koy amee léegi loo soxla mën nga ko am ci koñ ba nga dekk mhm. léegi loolu nag mooy bi ñëpp di jaay ana ñan ñooy jënd et mooy dem ba indi kujje waaw kujje goo xam ne jaaru si yoon si yoon ndax ku si nekk bu doon jaay ànd ak gëm yàlla mhm. ragal yàlla bu baax a baax sédd ko bu baax ci li muy def mhm. kon yaakaar naa yëpp dina jaar si yoon ku si nekk toog ak ku nekk ak sa wërsëg waaye day dem ba nga xam ne bu kii di jaay lii te au lieu que des jaay leneen lu wuute ak kee la muy jaay mhm. daanaka njaay bi benn lay doon bu ko defee ñu xoolante bët mhm. moom de moom rek mooy jaay moom de daa ut njarata wala moom de waxuma la njarata rek la ut waaye daa ut leneen loo xam ne pour man kenn du ma gis ma muuru est-ce que ñu ma bu ko defee man bu ma gis moom la ñuy mhm. gis nga daal di ko yóbbu yow itam di ko jéem a yàq waaw nga dem ca maamoon ba gis nga ko ba tàyyi man am ñu amoon nañ fi tam boo xam ne je pense que maag yow ñoo ko def baara la booy tamu Gambie Gambie bi mooy ay sénégalais lañu. ay sénégalais doomu réewu Sénégal lañu. baara la mais baara la ñu àndoo dem ba fële ba Gambie. Mhm. di ko fa def. Mhm. di ku ne di jaay. Mhm. waaye kese des moom ñaan na. nee na kee parce que moom rek day jaay moom rek mooy jaay. <laughs> waaw man dafa dafa def loo xam ne moom rek mooy jaay man kenn du jënd si man. <laughs> mu eenal ko lool eenal ko lool kee yëgu xew. mu jékki-jékki xam nu mu ko def jam paaka. mu faatu dégg loolu te doomu réew Sénégal lañu defee ko beneen réew di Gambie xoola loolu rek gàcce googu àgg na ci àgg na ci nga jël bakkanam ba pare mu daw mu daw dem yoonam yaakaar fii nit mën na fi rëcc mhm. waxuma la Sénégal mënoo fi rëcc mhm. waxuma la Gambie waxuma la Afrique mhm. àddina sax mënoo fi rëcc parce que nit ñi dañoo xamante ne monde est tellement petit ñëpp ay mbokk lañ ñëpp dañoo xam mën nga xam kii kee xam keneen kee xam ka ca des nekk xam fu ñu ko gisee après <laughs> waaw ba Guinée Bissau lañ ko fay jamono ji ma nga police Guinée Bissau ñu ngi koy xëccoo ñi naan Gambie ni ko indi Gambie ñi naan Sénégal maa ngi nuyu la famille Ka Ibrahima Ka mhm. boobu ba tey maa ngi doon ànd ak ñoom si yëf yi mais ah, na waar voilà xool loolu ndax ki Njaay waaw kay nga xam ne fiiraange gi nekk ci diggante yi mu mën a jur muy pëccoxoo boo xamante ne ni xëy na boobu kooku def na arme waaye am na koo xam ne nii deful arme leneen la def am na koo xam ne dafay ñëw naawtal la ci bitig bi nga xëy rek bàyyi dem si yoon yooy yëpp muy am ñenn ñi dañuy toog soo xale boobu kooku reyal mu ne papaam def ma eh, kii affaire liggéey yu mel noonu la rek. waaw muy xale bi ñu reyoon kii itam fu ne papaam def maa liggéey ci sëriñ def ma am. ah moo tax ma rey doomam. waaw yooyu yëpp mooy kii place sama ngi dox sa place doxul nga jàpp ne moom moo tax te war sa gi yëmul tam. nit ñi itam talawuñu loolu yëpp itam mooy eh, li nga xamante ne ñëpp dañoo jóg jublu ci rek faw mu pëccaxoo parce que nag loolu nag mooy jafe-jafe yi nga xam ne mooy am léegi nag tey su fekkonte ne nii dañoo am ay entreprise yu am doole yoo xamante ne nii ñu ngi téye seen i employé waaye di wëlbatiku di chaque année ñoom ñuy ut lu dole ko ca ñoom mooy la ñuy def mu ngay avancé nga xamante ne nii ñu ngi doon doge ñëw fii nii da ngay gis ne da ngay gis eh, ay yenn entreprise di wax ne soo bëggee journalier nga dem saa boo xëyee nga am loo xamante ne ni di nga ko wàccaale mën ci dépense mën a am loo denc sa bopp mais yooyu yëpp nga daan gis léegi tey dootoo ko gisati tey ñu bëri tey bërëb yi ñu ko doon yaakaare soo fa demee tey mooy loolu mhm. pour nga am accès pour pour kii day doy waar loolu nag bu demee ba jeunesse bi di yokk réew mi di gën a avancé ndaw yi di gën a sakkan léegi lu ñu war a préparer pour yokk loolu loolu ñu amoon war ko yokk loolu di wàññeeku. Mhm. mooy entreprise yu mag yooyu fi nekkoon ñu ngi yor yu ci bari tëj nañu yu ci bëri tey fi mu nekk ñu ngi doxee benn tànk léegi nag loolu noonu moo lay woon ne comme koomu réew mi. ñenn nekkuñu dañoo daanu ñu dañoo daan de. waaw dañoo jarleetu wala dara mhm. ñenn ñi dañ leen yàq. ñu daal di mu nga rek may. Eh, may génne leen ci biti seen xel nekk feneen. may jafe-jafe yi am kenn musul gis lii. waaw jafe am rek bu bu nit ñi jaaxle ku ci nekk da ngay li tax euh, ñàkk baaxul day rëkk ngëm ci doom aadama mooy euh, xat-xat yooyu ngay nekk mën na laa def looloo xam ne nii buggoo ko woon sa diine nangu ko day yàq sa pas-pas loolu itam dafay doon loo xamante ne nii mooy tax nit ñi di dugg ci di liggéeyanteeg di defarante yeneen di defar yeneen agression baa ngi nii gën a bëri parce que lu tax kooku itam bu bu bu fekkee war na liggéey amul kenn waxul ne da ngaa war a dem ndab sa morom la mu am nga jël ko ci moom ci loolu yoon waaye ñoom dañ ko fay weer dal di koy teg léegi si noonee sax boo jeexalee eh, si la ñuy daal di dem fa nga xam ne moo di a jëli fa la nga xam ne moo fa xew ay ci bismillah àggali waaw jëflante yu mel noonu nga xam ne nag yu ñaaw lay doon te ci pëccaxu bii di am fii ci fi nga xam ne ñëpp daje nañ fa loolu moo koy andi loolu nag fexe yaatal mbir yi fexe ba eh, entreprise yi ñu am ñu dooleel leen jàppale leen bu ñu mën a gis seen bopp mën a recruter askan bi ñuy liggéey bu ko defee ndaw ñi am ci lu ñuy jàpp bu ko defee yi nga xam ne dañuy wax ne dañu ko occupé ci dëkk bi yu bëri dina wàññeeku bu boobaa ñu mën a am Sénégal bi ñu bëgg parce que réew yi ñuy teg ba tey di leen xool naan dañoo war a mel ni ñoom euh, wax dëgg yàlla réew yooyu waroon nañu rus tey sax di toog di tudd réew yooyu duñu tudd ndax xëy na ñoom fa ñu jaar ci jafe-jafe ak yàqu-yàqu ñun awuñu fa kon mucc nañu ci loolu kon waroon nañoo mën a romb fii nekk tey yaatalante jàppalante bu baax ragal yàlla gëm yàlla te xam ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala moom moo mayewul sax dafa appelé mhm. dénkaane rek lay def ku am moom la ku ñàkkit moom la na nga mhm. gëm te xam ne yàlla moom dafa joxe te sédd te yamalewul daal ndax bu yoroon ñetti dërëm mhm. waroon ko jox ñetti nit ci xam kenn ku nekk waroon na am dërëm dërëm ñu tolloo waaye du defee noonee ki dina ko jox ñaar dërëm ka ca des mu jox ko dërëm ka ca des mu daal di ko xañ kenn ku nekk am na si ñoom lam la ñuy jàngal ka mu jox ñaar dërëm moom warta naagu benn yoon te xam ne moom bu si amul yërmande jàppale si ñam si war a jàppale dina ko nanguwaat bu ko defee joxaat ko ka nga xam ne moom la joxul dara ka mhm. mu jox dërëm ma ngi koy jàngal doylu mhm. waaw ma ngi koy jàngal doylu bu baax a mhm. baax pour mu xalaat ka nga xam ne amul dara waaw waaw waaw ka amul dara itam mu jàngal ko muñ kon kenn ku nekk am na lam lay jàngal ku ci nekk place bi nga nekk rek muñ day am da ngay am loo lamboo ci muñ mu mën a rafet mooy ki am tuuti na muñ ki am lu bëri na muñ mhm. nit ñi ñëw ci moom mhm. ndax lu tax am yërmande daal waaw am am la ñu wax mhm. kon ku moomul sa alal sa alal moom la te yàlla musal ci alal moom ok waaw léegi bi mu fi doon ab jël moo tax nit di ñëw di ko sàkku si ci yow waaye romb nañu bi ñu ñëw ci yow romb nañu feneen te duggunu fa lu tax mooy ab jël dafaa nekkul comme nag yow yàlla may na la ba mu doon ab jël faw nag kuy ñaani eh, gerte su gisee sekoo war a taxaw voilà kon loolu mooy mbir mi nga xam ne mooy tax kii am di bàyyi xel ki ñàkk di ñëw ci moom mhm. ki ñàkk itam di bañ a soxore ki am mhm. waaw ndax loolu yàqu-yàqu lay andi seen diggante mhm. réeroo moo tax ba ku nekk di war a góorgóorlu ci sa morom mooy ki nekk ci kaw na muñ waaye ki nekk ci suufit bu mu soxor waaw waaw kay parce que loolu mooy tax jam am ki ki nga xam ne def la ople euh, yàlla def war sagam tollu foofu mu ople bu ko soxore nga tey itam ëllëg mën naa ñëw ci say loxo wala mu ñëw ci sa njaboot dañ lay waxuma la fakkatal mais dañ lay jéem a fakkatal parce que yàlla moom bu ne kii mm-hmm. a fakkatal mm-hmm. boo moytu nag mën na këppuwaat si kaw nañu gëm yàlla bu baax a baax te xam ne àdduna moom lu waay def boppam mm-hmm. lu waay góobit gar lu waay reeni itam mu nàcc si ay yoxoo te boo moytul di nga tooñ say ay mbokk ndax ba wuccaxee mu dal si seen kaw ay ku pend jàllu gay bu dee élément mën a si ndimbalu Aliou Diop ñu daal doo rek ab euh, liir daal atam war a toll wala tout tànk ci benn ñoom moom daal góor la sax moom la ñu euh, daal di woon ne dañ ko enlevé woon euh, maanaam ay mbokkam daal gisuñu ko woon mm, ni ki démb ca ñaaxaax la xewe nekk ca région bu Fatick démb ci guddi daal la mëx kenn gisu ko ci ngoon gi lañ ko daal di fekk ci ab kër goo xamante ne dañ koy tabax te pareegul ca Fatick wante dañ ko fekk nag mu euh, daal di euh, faatu. jërëjëf nopp dalootina mi ngi noonu ni ko ay wës ñu génn le tout tànk boo xam ne Euh, douze mois fukki hmm. weer ak ñaar maanaam benn at kese rek la hmm. moom la daal di am hmm. di wuyoo turu bébé Ngor Senghor dëkk ca Ñaaxaar mag bokk ci commune Ñaaxaar ñu daal di jékki-jékki fekkoon dañ ko fekk teg ci xam nga xam bébé un an kooku mm. doxagul eh, déedéet doxagul kooku raamagul déedéet kooku wax dëgg yàlla mm, fu mu dem dañ ko fa yóbbu fu mu dem rek dañ ko fa yóbbu mm-hmm. kan moo ko fa yóbbu nekk lu ñu sàcc nag mm-hmm. nekkul koo xam ne ki ko jël mm-hmm. nekkul ne moo ko da ko sàcc de sàccu parce que en général da nga naan ñoom dañ ko sàcc mais da kay ba ñuy xoolee euh, enquête yooyu pareegul ba tey ñu ngi si waaye li jot a feeñ mooy euh, kenn ku jigéen koo xam ne duñ wax turam Mm-hmm. fii la dëkk ñu ne ci ndakaaru waaye day faral di dem seen dëkk boobu leen di ñaaxaar ah, am njaboot gëm fay gëm fay seeti mm-hmm. di far ay fan uh-huh. di dëkkandoowu ñii nga xam ne ñoom ñoo jur ngóor sengoor ah, ba mu ñëwee fekk ndaw si di togg yaayu bébé ngóor sengoor di togg mm-hmm. mu ne ko di nekk si liggéey beeg yooyu mu ne ko immateel la sa doom ji uh-huh. ma nga àggali mu àggale ba pare xam naa yóbbu ko seen ko diggante boobu gisu ko gisu doom ji gisu gisu ndaw si gisu ah, ndaw si gisu waa gisu ne ki ki ne mu dem si seen kër laaj ko ñu ne ko ñëwagul dafa dem école xaw ma kan dafa génn xaw ma lan moo ñoom ñaar ànd daf ko boot nee na ma ñëw dellu siwaat toogaat tuuti dellu siwaat xalaatu koon daal dellu siwaat mm-hmm. ñu ne ba léegi ñëwagul ñoom daal si loolu lañ toll affaire bi ñëwagul ñëwagul di ko am mu ànd ak njaboot googu ñu dem di wëri sa école ba wax ne fa demoon mujj gi ñu dem sa garage ba pour xool na amul ku fa aw ñu gis benn chauffeur laaj ko ba xam mu ne ah ah kay na koo xam ne maa ko yeb maa ko yóbbu Fatick fi ñu ko retrouvé mooy Mbuubaan Uh-huh. Boubane dafa bokk ci dans la région de Fatick. Fatick waaw te xale bi ñaaxaar mag ci commune nu ñaaxaar la bokk. fa la fa dëkk mais gis nga si benn bâtiment boo xam ne dafa nekk ah, dañ koy defar bu parewul. Uh-huh. foofee la ñu gis xale bi. ba pare ñu fat ko ñu ne wax nañu koy enquête ba tey dañ ko jam benn ku ku paaka loolu nañu ñu wax mais xoola ba loolu léegi kooku man kooku la da naan kooku lu ko daal te gune gu jigéen la de. doy na waar ah. et puis moom moo dem livrer boppam police finalement. moom moo dem wax ne man la mais ba mu demee kaddu yu nekk wax na ko man laa man xaw ma sax lu xew est-ce que yaam àndu seek lu kenn xamul ndax dof dof lu la mhm, wala mhm. <coughs> lu mu yàgg def la ah, mais ba oh. ñu si saasoo ba si biir itam ñu ngi wax mhm. ne ñaari yoon tëj nañu ko fii si Ndakaaru wàllu sàcc ndax luñ ko def la ba tax muy def loolu wala nax dafa am ku koy sant muy def li ni mel mhm. Mhm. ba mujj bii moom mu àgg ci foo xam ne xalaatu ko wala lan man comprendre ma parce que bu dee da nga sàcc doom ñuy mhm. xool kan la ñuy xalaat kan la war doon mais yow dañu xam ne yow yaa ko jël ci yaayam parce que yaa ne nga teel ko ko moom itam amu ci benn arrière pensée mu daal dina nangu loolee parce que dafa amoon yaakaar ci yow amul euh, kóolute si yow bokk waa lu doon na lu doy waar. wax dëgg ndax euh, bu fekkente ne nit ki danga koo fekk muy togg nga ne ko animateur la sa doom. mu jox la doomam boobu noonu nga gën dem ak moom yóbbu ko sànq ko ci anam yu mel noonu ba ñu mu retrouver ko ci beneen béréb. Ah, dëkk boo xam ne euh, wute na ak dëkk bi nga xam ne fa dëkk. Ah. ñu faat ko loolu moom euh, kenn mënu koo layal waaw li ñuy li ñuy jàpp nag ci ndax dafa wér wala wéru waaw xam nga Euh, toujours xëy na ñaare léeg-léeg jàpp ki nga xam ne euh, day sol col gu demee neneen wala di wér di wax ak dooree yooyu. ñu jàpp ko waaw am na koo xam ne. li tax doomu aadama war di bañ a saggane boppam. Hmm. di di di fonk boppam. di hmm. moytandiku tilim. Hmm. waaye di bu ñu waxee tilim nag am na biñ ci jublu. waaw. di moytandiku tilim mhm. di góor góorgóorlu ci yaramam di ko setal mhm. di góor góorgóorlu ci luy selal ruuxam mhm. mooy àdduna bi ñun dong nekkuñu fii soxna Thiaba da ngay toog sax ba mu yàgg nga tiit ci sa bopp bu fekkee yaa ngi setantal li nga xam ne mooy xew ci àdduna bi léegi li nga naan da ngay dem ba da ngay laaj naa man est-ce que du ma ci bokk suba voilà parce que li ñëw di dugg nit ñi nag loolu loolu benn ah, ah yaa ngi d'accord waaw parce que ah, euh, xam nga lu tax ku ko waxul joxoñ ko waaw jamono daa toll foofu. Euh. ndax euh, yi ngay dégg yi di ko gis. da ngay dem ba doo am fen foo ko mën a teg. Euh, loolu nag mmh. loolu li nga xam ne da ko xool amul fenn foo ko mën a teg ba mën a wax ne lii kat moo war a sabab lii. xëy na mu mën a doon loo xam ne li nga jàpp ne loola kat ba amee mën naa nekk lii am ci. waaye yooyu nga dut mën a ut ba teg lu leer loo xam ne nit ñi dañ ci mën a jàpp ne lii moo waral lii. parce que am na la daan xew. mu ngoog ñu wax ne waajur dañoo sàggan ñu wax ne ñu doxañ càggante ñenn si waajur yi dëkkale fu ñu dëkkul amaana sax demeewu noonu mhm. ñeen ñu dem nag di dem mhm. ñu jékki-jékki changé waajur dañu war a téye xale yi waajur dañoo war a téye xale yi nangam mhm. nangam waajur dañoo sàggan dañoo war a xale yi bu ñuy jàngi dañoo war def lii xale yi dañoo war a si kër yi ñu léegi ñu dugg ba si biir kër yi waaw kay léegi sax kuy dox koo xam ne bébé la lañuy jël fu ñu koy jëlee des fois yaa nekk si biir ñu jël ko sàcc ko cas bi nekk suñu kanam demeetul noonu. déedéet kii kay daa jël ci loxo yi daa jël ci loxo yi yaayam la jëlee. waaw loolu nag moo moo doon lu doy waar loo xam ne moo tax man la jëf yi léegi da nga ko dut mënatee am foo ko teg. Mm, mm. ba ne xëy na moo war a sabab li ndax euh, bu njëkk li nga doon wax ne dañ naan waajur wi lu taxoon ñuy wax waajur wi na na fogg ci doomam buñ mm. ne xale bi dafa lorul ñu naan dafa naan. eau de Javel wala yu demee noonu. Mhm. Euh, yu bëri mën na léeg jigéen bi sàggan teg ko. Mhm. xele bu ndaw toll ci kii ay xemeek yooyu. da nga daan gis ñu koy naan di ci loru. Mhm. wala ñu tabbi ci ndaal wala ci lu mel ni ay euh, citerne wala yu mel noonu. nga xam ne mën nañ faa tabbi loru. yooyu yëpp ci dañ naan waajur wi moom moo sàggan. ndax lu tax moo sàggan mooy xele bi waru ko woon a bàyyi. ba moom muy demal boppam di jël dara loo xam ne mun na koo lor ndax xamul xamul ràññeewul moo tax dañuy wax ne xale bi bu tolloo ci di raam ak di dox foofu noonu dafa laaj di foggu di ko bay xel mm-hmm. loolu tam man toujours dama ci tiit toujours toujours fu ma mm-hmm. nekk dama ci tiit mm-hmm. parce que lu tax xale bi xamul dara te lu mu gis rek day jàpp ne lu mu war a jàllale la nag foofu noonu dafay toll ci euh, lu mu gis rek ci gémmiñ bi la war a jëm léegi nag yow su fekkee da ngay bëgg ndil ay mbir yoo xamante ne nii yu yu doy waar yu danger la ci loolu ñaari xale bi di ko xam te léeg-léeg dañ koy def ne ca télé ba wala ne ca portable ba hmm. wala nekk jàkkaarloog seetu ba nekk sa bopp wala yaa ngi ca waañ ba xale bi xëy na jamono bi ngay takkale koog moom dalay may tuuti xaafiya pour nga mën a kii sa bopp da ngay dem ba dalay xatal tuuti da koy bëgg bu nekkee ci dara bopp li danger nag mooy loolu xale bu ndaw saa boo toogee cinq minutes déggoo ko mu jooy deful dara rek mu ngi ci dara loola mu nekk nag bu waxul dara demal nga nemmeeku ko ba xam lu mu doon mhm. amaa mu ngay yàq wala mu ngay def loo xam ne da koy lo voilà kon yëpp nag moo tax toujours sa bët da war a ko ci moom dañ war a topp di ko di ko sàmm que loolu moo la war ci moom mhm. loolu lañ doon wax ak cagante waaye yi am léegi nag ah, loolu moom mënatoo cee wax cagante ndax mhm. ni kii nga xam ne dafa jël doomam mu ne la mu taral ko ci néegam kooku loola la am néegam bii kat mooy mooy sécurité ci moom wax dëgg yàlla ki yor ki yor doomam. nga ñëw ne ko xaay ma téyel la. wax dëgg yàlla waaw mooy sax parce que na da ngay jàpp ne da koy yërëm la mu war a def yëpp. bëgg see boole tee tax ne ma kiiwal ko ak bu dee day togg tàngaay beeg yooyu sax di ñëw ci muy toggee mat wala kiriñ saxaar bi baaxul oh ci xale bi yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne ni bu amee ku ko téyel xale bi xelam day daal mais nag bu am ko téye faw mu euh, jëm ko léegi boo seetloo bàyyi moon boobu ba tey suñu thème yi génnoon ba tey ba léegi daf mel ni sa wàcc mooy xet na xaate yi rek kóolute gi ngay am waaw dañ lay wér dañ lay dañ lay wër ba nga xam ne too xam sax dootoo comprendre parce que kii moom mënu imaginer woon ne <laughs> doom bi keroog lay gëj a gisante ak moom vraiment mënu ko imaginer vraiment wax dëgg yàlla et puis lu lu méttee méttee métti ndax euh, ki nga gis jox sa doom parce que li fa affaire bi kenn mënu tax comprendre naka la demee quoi ki ñëw ne la an mateel la nga jox ko mais li mu paree dañu ko jëlee ñu ne la génn na waaw ñu naan la dee génn na dem na fii génn na fii nga di ko wér di ko wér ba jant bi so gisuloo ko xel sa xel lan lay jàppati. ba mujj ngeen def ay garage di wër di wër ndax daa dem ak moom jënd oto wala lan lan <laughs> ñu ñu ne waaw am ku ne waaw yëpp naa sa ko boot mu ngi après ñu wax ni mi ngi sol lu xonk ak mi ngi sol léegi mi ngi sol laa xooluma loolu rek coono googu rek lii fan la ñu jëm est-ce que kooku dinañ ko wax dafa sàggan euh, parce que lu bari euh, yu cas yu mel ni am na yàgg na am si pas yu ñu bii bii bii nekk suñu kanam si mm-hmm. mm-hmm. côté xal doom bu réer ak yooyu mu indi mm-hmm. jafe-jafe diggante jëkkër ak jabar jëkkër ji day jëlaat lépp tegaat ko si soxna si ci kaw soxna si ne moom la ne moom la parce que nekk moo fi waroon ko téye waroon nga ko lii waroon ko laa ba xuloo am ci ba des fois sax tàgg tàggalikoo tàggalikoo daal di am. moom mais léegi yii yii nekk suñu kanam nan la nga ko mën tuddee ak koy def wala ñi koy def nan nga leen luñ jublu ak nan nga leen mën a foo leen ñooñu waaw mu ngook nag loolu nag mooy kii kii di dem am na lu lu ànd ak moom lu koy def loo jëf ci waaw léegi nag analyse yëpp yi nañu ko toppaat ci suufa suuf comme dëkk fii waaw ak li ñu wax ne ñaari yoon jàppoon nañ ko li ñu ko jàppee woon lan la kooku mooy kan ban xale la mel lan la fu mu dëkk ak lan la nag la ban xale la mel waaw euh, euh, xam naa loolu de comme enquête baa ngi. gën a ah, loolu enquête loolu enquête bi dafa war a sori bu baax sax dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam daal kii lan la ndax moo ko tey. wala dafa am ñeneen ñu muy lëkkalool. waaw wala dafa am lu ko dugg dafa mm-hmm. feeb am feebar. buñ ko jiiñ nag des fois mu bañ a nekk feebar ñu yàkkam bi gis kaa mel nii rek. Mm-hmm. daal di ko jiiñ boo ko jiinee yàlla dina leeral lépp. bu ñu kompaloo ak ñenn ñi def yenn xeetu ñaawteef parce que jur sa doom daj si lu méttee métti mm-hmm. nga nga imbi ko si jàmm ak salaam mm-hmm. war ko toppatoo di ko tette di ko nàmpal di ko mm-hmm. boot di ko fob di ko gàddu keneen jékki-jékki fële nga yaakaar dafa am yërmande si yow parce que liggéey bi nga boole wala mu am yërmande si tout tànk bi na saxaar seeg yooyu nga dal di am kóolute si moom dal di ko jébbal sa doom pour mu téel la ko ba nga noppee loolu lépp nga dem di ko seet ñu la nekku fi nga ne ah xëy mu dikk kañ wax ne fa la dem école kooku dikk na mhm. moom dikkul dikkul nga delluwaat demaat beneen ñu mhm. ak njaboot googu di dem dootoo comprendre ah, finalement parce que ñoom ñëpp ñooy jaaxle nag et puis ñamu fekk ji woon ah, aussi ñooñu itam dañuy jaaxle ñamu fekk ji woon itam ñoom itam dañuy am dañuy am problème mhm. parce que faaw enquête bi itam ah, parce que comme ci ñoom la doon soy def na jëf ju mel noonu peut-être loolu moom li li nga waxoon léegi ne boobu caxee boobu caxee mu dal ci say mbokk mooy loolu rek mooy ay du yem ci bopp borom te yooyu yëpp itam mooy waxuma la mais kersa bi ngay def ci dëkkandoo yooyu ndax moom xëy na dekku fa bu fa jógee mën naa dem. nekk ndax mbokk la ah, wala koo naa nekk da ngay gis. xarit la fa am xarit lay am. wala ah, ko bu dee bu dee ajuratu euh, numéro téléphone bi euh, bu dee téléphone bi yemb na si boppam de sant nu ko neex ñu mën ko ubbil mbokk yi ñu mën ci jokkoo ak ñoom bu ko defee ñoom itam ñu mën a yëy yàbbi ci li nga xam ne moom la nam namm waxtaanee lu dafa waxu loolu ay di jàmbat xëyee foofee ca Niakhar dans la région de Fatick tout tànk bu góor boobu lay toll ci fukki weer ak ñaar di 12 mois di 1 an la ñu kon daal di faat foofee jëlee ko si loxo yaayam jëlee ko si kër kër ga dal di ko yóbbu si benn bërëb boo xam ne dañu nekk di ko defar bâtiment bu pareegul foofee la ñu ko fàttee xale bu deful dara ah, diggaalewu ko kenn ku dul borom bi subhanahu wa Euh, li tax ma ne naan euh, nit ki war nay foog ci sam boppam. am na yu bëree bëri yuy xew yoo xamante ne nii si jamono bii euh, léeg-léeg mu doon ay wax lekk lekk mu doon ay mm, jëf. Mm-hmm. waaye ki koy def wala ki koy wax. Mm-hmm. boo ko toppoon ba ci biir. am na leneen loo xamante ne nii mooy dugg ci moom di ko def loo. parce que yi ñu fiy nimeeku. yi ñu fiy nimeeku wax dëgg yàlla boo depuis kii yi passé yëpp mm. da ngay jàpp ne doo doon loo xamante ne jëf joo xam ne da ngay toog rek ñu mën na ko nit li nga ne noonu lii war naa mën a nekk mm. nga mun ko wutal benn lay boo xam ne war naa mën a jaadu ci nit pour mu war a a doxale noonu mhm. wala nit am xolu di ko def ñoom ñu weddi nga ba tey nee na ah déedéet loolu waaye ñoo ko tey wala ñu keneen tam ñoo ko tey ma leen bàyyi moor nañu xoolaat réew mi <laughs> di sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon wax Papa Moussa Fassi xam nga Moussa Fassi nañu sang réew mi balaa muy sang mm. boppam mu ngi sang boppam ah? ndax di gis loo xam ne dëgg yàlla xalaatoo ko woon mm. daawoo ko gis mm-hmm. mu mel ni axiru zaman la ñu nekk mu mm-hmm. jub jamono apocalypse Euh, waaw euh, loolu moom leer na foofa lañ nekk moom loolu kenn ah, laajatu ko aywa li ngay wax fa lañ nekk waaw loolu kay loolu moom ñu amaguñ dara ci nga ne fa lañ nekk waaw mais xam nga caba euh, li tax ñu ne ne loolu wóor na maanaam li nga xamante ne nii yan alayhi salaatu wasalaam waxoon nañu ko ci mujjug jamono yëpp bët tegu na ci moom hmm. xam naa lu des lu des moom tuuti la waaye luñ ci gisul moom lu néew la ngay xool gisu ko boo demoon ci euh, euh, kii itam euh, ak samaan bi nga xam ne si Ahmad Bamba Xaadim Rasul bi def na ko itam moom itam boo xoolee lamu mu fa wax ci mujjug jamono yëpp itam boo xoolee tey daanaka boo jëlan téere bi tey di ko nafar amul fenn fooy teg sa baaram te doo ko mën a joxoñ ne mu nga nee amul jën jëf joo xamante ne di nga ko dina ko wax ne lii te mënoo ne mu nga nee ma jàkkaarloo loolu nag kon mënoo mënatoo wax ne lañ leen waxoon ne lii lépp bu ngeen ko gisee xam leen ne ah kon nag te loolu yëpp bu ci nekk amul benn boo xamante ne tudd nañ ko ci nga mën koo jàkkaarloog moom te mënoo koo joxoñ ne mu ngi ne loolu mooy am mooy parce que gis nga bàyyi moom li fi li fi nekk nii nekkutu rek dafay dugg noonu rek soit da nga da nga tëj sa buntu mu dugg wala nga sa parentière mu dugg mhm. wala nga tëj sa buntu kër mu dugg dafay bënn miir yi mhm. sëñ Cheikh waxoon na ko de am na doole de am na doole de am na doole de day bëgg a miiri de daa mel ne léeg wax. ja rëy lool. wërum réew. wallaay wër na fekk na la ko wax loo la ko ba muy wax xamuñ lu mu doon. waaw parce que nag eh, eh, dañ ne lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole. mais jëf ji ci mbirum deret. Hmm. waaw maanaam jëf ji ci mbirum deret moo ñaaw. moo ñaaw trop te te te nit ñi ñeme ko. lool lool lool lool ba nga xam ne nit ki pour pour ni ñu koy waxee sax da ngay dem ba ne lii doon nekkul dara. Mm-hmm. te lu jafe-jafe la pour yooyu nit ki mën ca ak mm-hmm. kon nan mooy dugg nit ki ba mu ba mu di ca àgg. waaw parce que tey euh, dafay bari nag yoo xamante ne ni buy bari ci réew mën naa andi parce que day may doole ñi nga xa jinne yi nga xamante ne ni ñooy dugg ci doomu aadama yi te di leen jëfandikoo waaw mm-hmm. loolu di yomb ci ñoom loolu nag ñu war nañoo xoolaat suñu bopp ndax xam nga. ña nga xam ne ay yéefar la ñu du ñu am coono bu toll noonu ca loola ndax lu tax seytaane fëgalootu leen ndax xam na ni ñu nga ca la mu bëgg mm. ñi nga xam ne nag dañuy jéem a góorgóorlu di jéem a selal mm. ñoo ñooy am problème yu mel noonu parce que lu tax seytaane combat bi ñu mook ñooñu la léegi nag ñooñu bu fekkente ne ni dañoo agut ci dayoo selal di walbatiku di am yéen jëf yoo xamante ni dañu koy jëf loolu day woo seytaane boobu ci ñoom muy gën a am doole ci ñoom am doole gi muy am doole ci ñoom nag léegi seytaane bi tant que dugal la ci def loo xam ne dina tax nit ñi di la daw nit ñi di la moytandiku bu boobaa dawante bu amee yiw wu bëri wu nekkoon suñu biir jóge na fi buñ demee ba euh, euh, lorante di am hmm. noonoo bu bari judd na ci suñu biir léegi bu boobaa kon li mu bëggoon ci ñun am na am na ko parce que lu tax mooy waxante lu ñaaw hmm. soo seetloo rek penc mi tey lu fi nekk hmm. defante lu ñaaw waxante lu ñaaw lii rek foo foo dugg rek lii nga fay jëkk fekk mu doon la la gën a buñ yemoon ci waxante bi bu ñu yemoon ci waxante bi rek sax mu tane. wax ma la baaxul de. xam nga baaxul baaxul gënul. <laughs> waaye mu tànn defante parce que ay cat mm-hmm. parce que kuy wax si nit rek di wax mm-hmm. di wax rek. ak mm-hmm. di waxante yooyu yooyu yëpp ay cat lay indi nit. Ah, te cat ku ne xam ne ne buntu la. dafa yéeme lool. Ah, waaw léegi nag nga bëgg nga war see boole nag. wax bi ak def bi. waaw muy ñaar yi. pour muy ñaar yu doy waar yoo xam ne bu ñu àndee nag lu ne mën na koo jur ci musiba. ndax kii ki kiy wax ci ci nit mën naa wax bakaar boppam lay def bakaar. maanaam mën naa càtt comme yokku waaye nag tiyaaba ji yow lay jaamu yàlla uh-huh. mooy nekk ci nit turu deru nit di ci wax waaw loolu moom toujours rek ci yow lay dellu si waat waaw ci yow lay dellu si waat mooy sag pay lay doon yaa ngi koy jaamul yàlla waaw léegi beneen bi nag bu yemut foofu mooy jëflante ko jëflante ko bi ak waxante ko bi lii yëpp nag te wax ju ñaaw soo duggee ci internet bi tey loolu rek nga fay fekk mu hmm. fees fa del da ngay dem a dem ba yow da ngay tiit sax da ngay naan lii nun fan lañ jëm. waa diw maa ko gën a réew. waa maa ko dina xam ne maa ko gën a dof. waaw lay dina xam ne man gis ay tëkkuwante rek di nga xam ne daf maa tollul fii. waaw dinaa defanteeg moom ba mu saf. xoolal baat yooyu defante. mu mu mu doon yoo xamante ne ni. ana dinaa ko wan sama bopp yow wan boobu ngay wax yow wax boobu àgg sax borom bi subhanahu wa taala la neex voilà ah? léegi nag yow ci sa bopp fàtte nga yooyu yëpp li ma ne doomu aadama dafa sagan daa gaaw a fàtte adduna daa xumb nag bu kër waxoon naa ne adduna dafa xumb mm, mais daganul xumb ma waaw daganul moom waaw mais daganul waaw mais ah. xumb bi mu xumb mooy sànq sama classe gis ci lu bëree bëree bari mooy lan da ngay gis ne rek tey wéttaliku wante bi bëri na nga naa man faalewu ma waaw man man man <laughs> waaw façon terme bu ne nga andi ko fekk na li tax mooy yow yow yow yow yow doo dara yow yow <laughs> mu ah, xoolal mais xool ko si ñi nga xam ne ñu ngi toll woon nu leen neex tabarkalla di sax tiitaroo seen taar amaana tiitaroo amaana mm-hmm. ñàkk ko tiitaroo mm-hmm. te gis nga baleen feebar yenn feebar yi dabee mm-hmm. buñ la wanee ñaari portale yi image bi ak image bi laata ak image bi ba mu tawatee wute na lool da ngay yéemu da nga naan est ce que kii moo nekkoon kii <laughs> boo moytu sa rango ñi dal sa dënn <laughs> gis nañ ko fi ba taay <laughs> mu nga ci yenn xeetu feebar yi pour ne pas lim leen waaw waaw muy yu bëri sax yoo xam ne toujours bu feeñee ci nit rek day am yu bëri yu jeexital bu mu def si yow waaye da ngay gis léeg-léeg eh, xele di fa ak maamam maamam ne ko bilaay ba ma cay talu maa la dàqoon mu reetaan ko mm-hmm. waaw xele bi du comprendre li muy wax parce que day jàpp ne maam nii mu mel nii la meloon waaw na loolu mu lay wax noonu. Mhm. lu dëgg la. Mhm. ba mu tolloon ni yow ay eh, at soo ko gisoon dëgg ñu wanoon la ko. Ah, xëy na booba eh, portale yombewul noonu. mais fekkonte ne mënoon nga am ay image am comme tey nii sa image yi ñu koy garde bu boobaa nga xam ne li mu la wax dëgg la. ah yaa may fekk si bu boobaa dina la waaw bu boobaa mu dolli la <laughs> ni ko maam yi waxee. bu boobaa mu dolli la waar waaw bu boobaa mu dolli la ak ndax lu tax mu lay dolli ak waar mooy di nga xam ne kii kat da daan jóg di daw. wallaay daan ko doon xool jàkkaarloog moom. bañ yi weex tal benn manqué woon waaw yaram wi di nes nes voilà léegi yow mu xamoo ko ci jëm ndax bi ngay judd fekk nga yaram bi res bañ yi dem oh. ba yi naqari muy dox di sukkeedu léegi nag kooku su la ne maa la dàqoon da ngay koy da ngay reetaan parce que tax may ko <laughs> tey nag na la wóor ne boobu xale bu xanaa xale bu ndaw lay doon nag waaw mais léegi gune xam de gune yi dem gis nga mag ñi ba si lañ déggoo li ma la ne àdduna dafa xum bu mu xumb bu mu xumb moo tax ba la jëriñ doo ko xalaat nit dina la wax lu am solo mais xumbaayu àdduna wéttaliku bi ngay wéttaliku mooy tax xam nga fan ngay xamee lu tax ñaare bala ngaa dégg wax nga toll ci jafe-jafe ah fekk mu waaw dal di ne dal di doog a déglu dal di ne ah diw de waxoon nan foofu ngay doog a dikkee parce que lu tax muy xum-xum bi léegi dañ na naan su ma yëgu ay ma su ma yëgoon waaw rëccu fekk jëf na wees na euh, parce que ku ci rek euh, euh, léeg-léeg àdduna day xumb ci kii du xumb ca kale li tax di ah, xumb ca kale mooy ay tolluwaay la li tax bu toujours naan nit ki temps bi mu nekk mm-hmm. toujours ñaare dina ko yóbbu ci lu bëree bëree bëri bu teew wala soo war ma sax may wax côté feebar ñi ñi tawat mm-hmm. itam ñi nga xam ne caabi dina féete ginnaaw mm-hmm. moo xam dañoo def amoon nañu fi ñu toll woon am na nu ñu meloon moo xam def nañu parce que ndogal dal na nattu tegu na seen kaw moo xam defuñu ñu tuumaal leen nekk ci prison yi ah, ñooñu itam xalaat leen waaw ñaari mbir am ci muy Euh, ñu bëri ci ñoom natoo leen fi yomb. ah wallaay ndeysaan waaye ñu bëri it juum nañ def. juum def waaw parce que loolu mooy am. mooy nit ki day juum def. mooy lan moo xam jur doom sànni ko wala jur doom pat rek day tëlu ci circonstance boo xam ne. danaan lii rus naa ma defee neneen. rus naa booba nag andi ko rus ba delsi leneen loola ñu toppee ko ko mooy. doom bi maa ko jur waroon koo téye mm. mais rus naa ko téye ndax ni ma ko amee léegi nag nga daal di dem sànni ko mm. ñuy enquête ba jàpp la waaw nga wala nga faat ko ñuy enquête ba jàpp la buñ la jàppee léegi xam nga eh, kon la nga doon bañ am na mooy siiw bi am na waaw waaye nag def nga bakkaar ndax rey nga est nga voilà xalaatoon nga laata ngay amal jëf nag bala ma koo naa ko téye ndax nag loolu mu maye ko waaw ndax nag bakkan la yow te it sama nawle la ndax man bu ñu ma defoon nii kon tey duma fi nekk tey ba def li comme man maa toppoon sama euh, nafs wala jumte mm-hmm. ba lii dal ma ci wala ñu réer wala ñu juumloo wala ñu juumloo ma naa taxaw yëpp a ngi ci biir naa naa taxaw rek tee ko téye bu lu mu tàng-tàng moo gën a sedd leneen la ca des mm-hmm. loolu nag juumte lay doon bo tey bu doon lu ñuy biis biisaat di ko defaat doo ko defaat kon kooku dañ koy jàppe ne dafa juum mm-hmm. ki nga xam ne dafa nekk ci société bi di yàqu mu nekk ci di jëflante jëf yu ñaaw def ñaaw ba loolu suub jikkoom ba jikko ji Eh, xaw xol bi muuru. Mm-hmm. ci amatul weg kersa bu muy jox nit kersa nekkatul ci moom xamatul mag ak xale amatul ku muy jox war na amatul kilifa kooku nag moom nekk na koo xam ne nii addinaam commencé na yàqu ndax lu tax commencé na yàqu mooy yoon yi mu war na jaar yëpp pour mën a dellu si loolu yoon yooyu yëpp fat na ko. Mm-hmm. mooy daa war na am kilifa bu toogee mu ne ah man kat li may def bon na waaye nag diw kat sama kilifa la. naa ko sëb moo waral ñu wax ne ku si amul kilifa rek jinne doon sa kilifa. mu ngoog voilà te jinne bu nekkee sa kilifa da ngay mm, ah, na nekk kilifaam mm. ki kilifa. ci jinne ay waaw mais bu dee nit yow mii nit. Mm-hmm. amoo kilifa ba jinne doon sa kilifa. musiba naaru laay dal na si musiba am na. kooku nag ci ci yàq rek lay nekk. parce que dootul mën a dellu si boppam ndax lu tax mooy moom yoon yi mu war na mën a jaar ba dellu si yoon yooyu yëpp fat na ko mooy juram jëppi na ko ba koy ñaanu yàlla oh. waaw ndax lu tax mooy Euh, nii nga mel ak jëflokaan yii nga ame metti na ko ndax moom kat daa amul lu mu doon bañ am fu mu doon dund am lu mu jëmbale woon mhm. boppam yooyu yëpp nga jël ko waaye Baye Mor aussi est ce que waajur bi tam dafa war a gaaw découragé war a démissionné ne man jéppi naa jéppi naa sama doom waaw xam nga xale bi ñëw bi nga xam ne zéro la ñëwee lu mhm. nekk ci moom dañ ko def ci moom mhm. bu dee am na leneen loo xam ne def na ko te mhm. te kenn xamewu ko koon yow mii si boppam di ñaan ku judd si gëléem euh, am na ñoo xam dañoo judd si gëléem nàmp si mbaam comme ni ñu ko waxee ku sayn ku nekk sa ah, dee mel nga ni nga war a mel si ñu baax ñi mais bu dee nii dafa da dafa am lu ko dal dafa am lu ko dab accident la waxtaan naxtaan ak moom ñaanal ko itam ñaanal ko itam waaw parce que réer dafa am wala ñu yow nga réer wala ñu réer bëgg laa réeral mhm. wala nga ñàkk xam ku mhm. xamul nag faaw nga xamal la ah, ku réer da koy ñaanal yàlla gindi ko teg ko si yoon wi bu ko defee mu mhm. mën a dellu siwaat waaye boo ko beddee day dem utali mbedd ma def ko dëkkuwaay te mbedd ma ku nekk mën nga daje ak moom yàlla nga dajeeg ñu baax ñu récupéré la alhamdulilah mais mën ngaa dajeeg ay saay-saay ñu gën laa sànq boobaa jëppe bi dootu am sens parce que yaa ko jur waaw kay xam nga euh, li ñuy wax rek maanaam euh, nit ki dafay am foo xam ne da ngay jóg ngir jàppale ko ci li koy dal mooy fi ñu njëkk a waxee ne ki juum dem fa xam nga ku njuumte moo ko fa yóbbu njuumte kenn du ci bàyyi nit njuumte kenn du ci gën a sa doom sa doom dafa nekk si kër gi ndog dal na ko amaana mu doon jigéen wala mu nekk góor mais ndog dal na ko ndog bi ko dal ci njuumte la ko dalee comme ku mel nii def ni kii comme cas bi rek suñu kanam waaw dañu wax ne ñaar yoon te nañ ko fii si Ndakaaru bu dee eh, si si c'est avéré bu dee lu wér la yaakaar naa ne loolu itam bu dee eh, waroon nañ ko kooku xool nag yan pexe la ñu mën a mhm. def waaw parce que benn yoon metti na mhm. mhm. ñaar yoon nga tollanti ko tey jii dakkalu ko ba tey mu wëyal ko bu dee feebar la <laughs> waaye jàpp ni des fois nit feebar bay moor ñu ñu ne ko dafa réew dëkkal ko fu mu dëkkul parce que ñaar yooyu dafa xaw a nduru ci niñ si si seen xaw a doxalin xam nga seytaane buy dugg nit ba tax ñu di ko tam ñu di ko tam di ko joxoñ seytaane boobu noonu mu ngi ci àdduna di dundak nit ñi li taxoon ma jëkk ne nit ki nay jéem a selal bakkanam tuuti ngir moytandeku ci yoon yooyu seytaane aw ba jaar ci nit ki ba dugg ko ba di ko jëfloo jëf yoo xam ne jëf yu xeebu lay doon jëf yoo xam ne bu amee kenn du mën a layal jëf jooju mooy lan. ci waaw moytandeku bi mooy lan xam nga wax nga ne xale am na ñaari yoon ñu tëj ko. laata ñu koy tëj am na fu mu jaarak nit mu ne ko ah diw ruse la diw. xam nga nit euh, balaa jafe-jafe ñëw bu jëlee yoon parce que li ñu wax ne boo fa demee delluwaat fa. Mhm. am na loo def. dem bu njëkk bi mën naa doon tuuma waaye kon nag bu fexeel bu fa delluwaat moo tax nag dem fa demaat fa nag. Mhm. am na lu ñu lay jox.